bismillahi rahmani rahim alhamdulilah xaaliqi xalq ixtiyaari غير حادث من اضطرار الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وافضل الصلاه وخير التسليم على خير الانيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ولا نكفره ونترك من يكفره mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu leen di nuyu di leen sant teewaay bi tànk yi ngeen jógee seen kër ba ñëw fii di wut yàlla ak dëgëral lislaam ak mbokkoo lislaam ak fàttaliku ko suñu borom gis na ko yàlla na ko def muy jaamu ko ñu nangoo jullit amul lu dul lislaam te lislaam doo ngay dara adduna ak alaxira lislaam mooy li fi am njëriñ doomu aadama suñu borom daf ko indi ci kaw suuf mu ñëw ngir jàng bu subaa mu tari bu jàngee bu baax ba bindam mokk ba liggéey buy tari dana am mbëg bu taree ba noppi dana am mbëg mu yemewul fenn mbëg moo xam ne bu tàmbalee day yokk rek waxtu wu ne mu yokk jamono bu ne mu yokk bis bu ne mu yokk ba àgg fu kenn mënul a xalaat waxtu woo xamee ne nag gàtt na wala mokkal jàngul li ñu ko doon jàngaloo xam ngeen la cay tegu donc duñu doomu aadama gàtt na gàtt boo xam ne waru cee neenal dara lu mu nekk rek war nay koy jëriñ ëllëg li mu fi nekk yàggul te jamono yi mu fi nekk daf ci bari diir boo xam ne daf cay tële jamono bi mu mënee soxla yi song ko ak itte yi ak diggaale yi ak aada yi kon li mu dese ci rasmaalam maanaam ci capitalam lu tuuti la capital bu tuuti nag boo ci bëggee am bénéfice bu bari da nga farlu lool farlu nag moom la kenn dul rëccu tax dañ ne ñi njëlu ñi jànq duñu leen jot mukk ñi jànqit ñu gont duñu leen jot ñi gont ñi rañaan duñu leen jot nit ki na mu gën a jubloo ci boroomam rek faj ci lépp lu la gën a woomale ëllëg waxuma taxawaay bu yàgg ba juróom fukki junni at waxuma jéggi saraat ak kër gën nit ku nekk jëm waaye trayi bàmmeel rek gannaaw nit ki li mu jëfoon rek la fay xéewloo te kenn xamagul kañ la fu mu yemee ko def dellu si ci xelam danga ko soññ bu amee xel xel nag bu ko suñu borom sàkkale doomu aadama la layoog moom yey ko xel ci lay xamee lu baax ci lay xamee lu bon liñ koy xamal lépp ci xel mi la koy xamal buñ ko xamalee nag bu fa jógee ba tey xel mi mooy root mooy liggéey alquran waxul lu dul borom xel yi te borom xel yi mooy ñuy xalaat innama yatadakkaru ulul albaabi borom xel yi rek ñooy delloo seen xel te xalaat seenu dund li weesu ak li ñu jëm ak fa ñu jëm ëllëg inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluna suñ borom bu nettalee kawtif gu mu def ba noppi dafa naan loolu kat kéemaan ngi ci ak waar a ngi ci waaye borom xel yi rek kon nit xel bu ko ko yàlla joxe jox na ko xéewal gu màgg mooy làmp bi nga xam ne yoon yi muy jaar moo koy niital ci lëndëmu guddi gi bu gisee lu koy lor mu teggi ko bu gisee fu mu mën a jaar jaar ko noonu la xel demee ci dundu doomu aadama doomu aadama yi kon suñu borom indi leen fii ne innamal mu'minuuna ixwatun ay mbokk lañu li gën a naajeel nit ki bis penc ba mooy xàq ñi nga dëkkal loo tax lislaam njëkk a santaane gannaaw yàlla mbokki jullit yi fàttali ba tàyyi xàq yi ñuy war a toppante ëllëg dañ koy war wattandiku tey balay ëllëg la ñëw xàq lu diis la dana mettil sukuraat dana mettil trayu bàmmeel bu nit ki dekkee jëm fa ñuy daje xaq yi rek a koy diisal mooy naqari yoon wi muy jaar yoon wi mën naa tàlli ñaari nit ki war wala muy dox wala muy raam wala muy bërëmu yoon wi muy jaar jëm ci bërëb ba mën na leer mën na ñaxe mën na bañ bari ay dëkk ak i pont ak i rab boog lépp loo xalaat ak lëndëm goo xam ne daanaka boo làmbee daj ko te doo xam fu mu di làmbatu rek ndax doomu aadama bu setalee xolam ba meelam set du fa gis lu koy gaañ du fa gis bu xolam leeree ba meelam leer bu xolam yaatoo ba meelam yaatu xol mooy misaalum bàmmeel xol bu xat borom muñul dara xajoowul dara te du seet lu sharia a tere mu ñàkk koo xajoo lu mu digale mu xajoo ko lu dul bànneexu boppam ak loram ci zahir ak njëriñam rek lay seet bu xal xatee rek bàmmeel xat sukkuraat métti bu xal yaatoo bàmmeel yaatoo dañu ne dugal mbég ci xolu jullit day waral njéggal suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ci alxadisul qudsi alxadisul qudsi mooy xadis boo xam ne suñu borom ci boppam mooy wax tabaraka wa taala te defu ko muy alquran nëmmu koo def muy alquran mu wax ko nag sànni ko ci xolu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko mbindee fi mel na muhammad day wax fekk suñu borom ay wax tabaraka wa taala mu wax ne yow de doomu aadama tawat naa te seet si woo ma mu ne ko yow rabbul izzati borom bindee fii ana na ma lay seet see mu ne ko xanaa yëguloo ne diw sa mbokkum jullit tawat na te seeti woo ko boo ko seeti woon fekk ma fa xanaa yëguloo ne ñàkk naa te dimbali woo ma am naa aajo dimbali woo ma loolu lépp doomu aadama bi di ko tontoo yow borom lépp ana na ma lay dimbale ana na ma lay seet seet bi nga xamal ne diw sàngam sa mbokkum jullit lott na te dimbaliwoo ko boo ko dimbali woon man nga fay fekk diw sàngam ñàkk na yëkkatiwoo sa alal dimbalee ko te boo ko defoon man nga ko defal te am naa pay wane ne suñu boroom gannaaw yi mu farataal nga xam ne dara mënu koo wuutu julli juróom weeru koor ak ci ku ko mën ñaari baati seede yi asaka ci ku ko am yooyu la kenn mënu la defal kenn fardu kifaaya la kenn ku nekk war na la loo ci deful it dañ la koy topp waaye jaamu yàlla yi ci des yépp jaamu yàlla yi ci des yépp dikr ak fikr ak nafal ibaad yi ñooy yi ci ëpp doole jëriñ jaam ñi jaam buy jëriñ moroomi jaamam donte yéefar la suñu borom du ko lakk mukk suñu borom am na téeméeri tur yoo xam ne téeméeri jikko lay tegtale benn jikko bu ci ko ci nit niru rek du la lakk mukk te suñu borom ku tabe la dafa tabe tabe goo xam ne yemul fenn moo tax képp ku tabe boo doonoon yéefarit ak lu sa bàkkaar bari bari ak loo mën a lore lore suñu borom du la mbugale safara loolu lépp bëgg jullit ñi def seen bopp benn boole seeni xol dimbalante ku soxla sa moroom yépp jóg ko am tiis ñépp bokk ko ku ci nekk def sa moroom mbokk ñu def lislaam muy kër gi nu bokk tarixa yi di néeg yi nga xam ne kenn ku ci ne am na néeg bu mu cay fanaan bu ñu xëyee daje ci digg kër gi lépp luy defar kër gi nu bokk ca ànd lépp luy yàq kër gi nu bokk ca wattandiku jullit ñi lépp lu leen di boole lépp lu leen di boole suñ borom bëgg na ca moom lay reer lépp lu leen di teqalee suñ borom sànjal na loolu te ko ko def dana ko gis ñu koy faral di waxee rek lépp luñ lay wax nga di ko dégg nga gëm ko wala nga ñàkk koo gëm da nga ko mës a gëm ndax da nga ca tegi sa bët boo tolloo ci sukuraat léegi yëpp li la daan wax yëpp da nga ci teg sa bët mu leer la nañ ñi nañ ñi nañ ñi te dara du la ca lënt nga soog ca dugg bu dee lu baax nga dugg ca bu dee leneen itam noonu doomu aadama bi ni mu war a soppe mbokk jullitam war ko koo dimbale bokk ak moom ay itte noonu la ko war a wattoo ci bu teewee ak bu faddoo ci ñaawal ko ci yàq deram ci yàqal ko jéem ko yàqal wala siiwal ay ayibam wala ay wàññiku wàññikoom nit ku nekk am nga ayib ku nekk am nga foo matadee kenn ku mat ci wet bu nekk moom la yàlla biddu xanaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo wàccee nag yow sa ay matadi muur ko di wax matadi jaamur mu gën la ñaari yoon ndax benn noppi na ci say ayib gën na la foofa ñaar nga dugg ci ayibam di ko sulli mu gënati la foofu képp ku la tooñ nga jéggal ko ngir jëmmi yàlla suñ borom dana la jéggal te kookee boo ko baalul da nga ko poñe bisu taxawaay ba keroog bu ñu taxawee ci kanamu balaas yi nga xam ne bokk na si ñetti béréb yi nga xam ne kenn du fa tal kenn benn jëmm du fa tal benn jëmm boo séenee sa yaay daw ndax xaq yi nga ko amee bu la séenee daw boo séenee sa baay daw boo séenee sa rakk wala sa mag daw moom itam bu la séenee daw ndax foofu xaq dafa tiis li nga am doyu la xaaju lay doy yaa ngi koy dëngal di niir ndax tuuti nga war cee fab jox ñi nga amee loolu xaq day daal di metti bu borom xaq yi ñëwee jël ba nga jeexal ñu fab seen bàkkaar bi la nga leen amee loolu ci xaq teg la mu metti nga gis ku ñëw am na tuyaaba ju xajul fenn ñëpp di ko ñee borom xaq yi ñëw di fab ba di seetul dara ñu di ko teg bàkkaar yi ba mu gën a texee di ci ñi teew ñëpp ko mooy tafliis dañu ci yàlla musal fekkente ne nit ki dañu ne wattu sa borom wattu sa moroom wattu sa moroom nag moo gën a jafe tooñ sa moroom it moo gën a tiis ndax nit xolam réyul am na yu bari yoo xam ne mënu koo bale te lépp luñ balewul faye cay waar suñu borom nag karim la mën naa jéggale lu nekk benn waaye boo xam ne caay caay du ne ci àdduna def na ko lu bon lu ne naan na ko lu bon lu ne lekk na ko lu bon lu ne def na ko ci loxoom fu bon fu ne dem na fa ci tànkam lu bon lu ne bëtam xool na ko lépp def na ko mu tiit bi mu waajee dee wax ay doomam yëpp ne leen su ma deewee na ngeen ma taal lakk ma ba ma nekk dóom ngeen jëri ma ci géej gi ndax xam naa ne suñu borom bu ma jàppee moom dana ma def lu bon mu dee ñu lakk ko boo xam ko jëri ko ci géej gi suñu borom ne géej gi delloon li nga faboon safara delloon li nga faboon suuf delloon li nga faboon waa ji ne jëm ma taxaw suñu borom ne ko waaw yow ana lu la xiir ci li nga def mu ne ko ragal la xam naa ni moom ba ma jàppee na mu ne ko jéggal naa la kon suñu borom moom mën na bale lu nekk ci jaam boo xam ne wut nag njéggal itte woo ko mu jaral ko tiit mi waaju di tiit ba di lakk lu boppam sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom du boole ñaari tiitaangi ci jaam boo tiitee ci adduna ci fa ngay jaari bu alaxira tiit yooyu daañu la ko fegal ba doo ko gis sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ki bëgg a dem àjjana moo cay dem ki bëgg a dem safara cay dem ki bëgg a àjjana dem àjjana mooy kan mooy ki nga xam ne mu ngi wattandiku lépp lu koy yóbbu safara lépp lu koy war a yóbbu àjjana mu di sa góorgóorlu la man kooku bëgg a dem àjjana fokk insha allah mu dem àjjana ak jaar-jaar yi mu mën a jaar ah ragal nag fu nit toll ak lu mu jaamu jaamu yàlla am na xaqi ragal maanaam war na ragal ndax suñu borom tabaraka wa taala kenn mënu koo jox xaqam kenn mënu koo jaamu li nga ko war a jaamu lépp ba mat ba dara desul kenn mënu ko wattandiku itam loo wattandiku wattandiku am nga lum la mën a topp boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daan jéggalu lu bari ba daan leen tuub man de benn bis dalaa ca tuub fukki yoon téeméeri yoon benn bis dalaa ca tuub téeméeri yoon daan wax saxaaba yi di leen ñaanlu njëggal ku gis Uways Qarni Uways ibn Amir na ko ñaanloo njëggal ndax lu mu ñaan suñu borom dina ko def nit feek bakkanam rot na lépp lu ko naqari wala mu metti ko wala mu jandoog loolu mu ñaaw benn mu fitnaal ko ci di ko xeeñ wala mu fitnaal ko ci di ko gis mu ratlu wala mu ñaaw wala mu di ko yëg ci yaramam muy lu tàng wala lu ñaaw lu koy gaañ lépp ci liñ ko jéggalul la jéggal gi dem na ba nit ki dem àjjana darajaam ak gul ca darajay mu taquna yi mu aajo woo itam njëggalati mu dem ba jege boromam tabaraka wa taala aajowoo njëggal ndax gën a jegeeti suñu borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne yonteel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leelatul mi'raaj yi du mu génnee ca xadra ba xadratul quds daje naag Ibrahima ne njëkk a dajal biñ ko santee téeméeri julli xeetu bi di war a julli téeméeri julli ci bis bu nekk romb na yonte yàlla Ibrahima alayhi salaatu wasalaam Ibrahima telu koo wax ne ko dellul sa borom wàññil la ndax jàkkaarloo gim jàkkaarloo màggu suñu borom gi tabaraka wa taala ba tëy ba tiit ba xamatul fu mu nekk tax na xamatul dara yonte yàlla Muusa la yonent bi àgg fa moom mu ne ko sama xeet bi ëppoon doole sax xeet bi ñoo leen gën a féex te mënuñu woon lu jege loolu demal suñu borom wàññil la muy dellu di ko wàññil ba mu des juróom waxtu rek ci julli gi ba bis mu ne ko nag rus naa delloo si di wàññilu lépp ci nameelu suñu borom tabaraka wa taala kon nga gis ne jaam bi nu mu gën a jegee boromam rek na la ko gën a ragale na la bàkkaaram gën a sete na la gën a selle na la texeem di gën a rëye texe dana àgg foo xam ne sallallahu alayhi wasallam buy wax ne doomu aadama bu fekkee ne ku gëm yàlla la bu duggee ci bàmmeelam ñu jox ko genn wàllu àjjanaam kooku aarifoona billahi ak siddiqo yi ñoo tax waaye ku dul ñoom daañu la wan sa kër suba ak ngoon da nga ci xéewlu bu gàtt waaye bala nga ciy dugg ñu dekki ba nga jéggi siraat naan ci xawdu nabi sallallahu alayhi wasallam muy mbalka ma di kawsara waaw Musa alayhi salatu wasalaam buñ ko ne yow day wax nga ak suñu borom nga dégg waxi jëmmam jë xam ne yebalul mbindeef mu wax ak yow moom ci jëmmam mu wax ak yow waaw na nga gisee wax yi wax ji mu ne bu dee ci tiitaange gi ngay tiit ak diis gi daal ak metti gi mu mel ne téeméeri junni dënu yu dalandoo nga di ko yëg bu dee bànneex bi nag mënee su ko wax mënu mënee su la ci jox benn xalaat pour nga xam bànneex ba na mel mu ne day buñ dee wax tuuti yàlla tuuti moom la Moussa dégg ci wax suñu borom tabaraka wa taala tuuti ci nit nga xam ne yàpp ak deret da nga xam ne boo ko jamee mu bët boo ko xàppee jaay si mu nàcc la mu mën a dékku su borom moo ko dëgëral dëgër goo xam ne tax na mu mën a dékku loolu neex buñ ko felloon téeméeri junni fell benn ca buñ ko séddaloon waa àdduna ñëpp ñu seey Moussa suñu borom dëgëral ko ba mu dékku loolu ci yërmande suñu borom jàll jalaaluhu jël gële naa ne dékku na ko waaye xam na wax ja te fàttewu ko jàpp na ko xam li mu ko waxoon lépp ñaari mbindeef yooyu la suñu borom mas a waxal ci melaw jëmmam ji nga xam ne bu doon mbindeef nit dañ naan ci lamiñu boppam la waxee ñoom muy Moussa ak Mouhamed alayhi salaatu wasalaam Ibrahima mi nga xam ne bu Mouhamed sallallahu alayhi wasallam yee moo ci topp moo gën mbindeef yépp suñu borom waxul ak moom ñaar ñooñu la tànn wax nga nga xam ne kon liy wax wala fi wax naan ndomb ngëneel du ñeel du wër ñaari yoon Moussa ngu noonu am na loo xam ne yeneen yonent yi amuñu ko ku mel ne Ibrahima alayhi salaatu wasalaam yonent la Isa roox la Isa rooxullah roogu suñu borom la judd na amul baay ndax roogu suñu borom jox Jibril mu indi ëf ko ci robbu Mariama la waaye waxul ak suñu borom tabaraka wa taala waaye mooy ruuxullah bi nga xamee nag suñu borom waxam ji nga xam ne mooy sifatu zaatihi beral na ko ñaari bindeef muy Muhammad ak Moussa Moussa noonu mu déggee waxi suñu borom ji tabaraka wa taala ni mu ko déggoo nga xam ne suñu borom ko ko may li Muhammad dégg ci waxi suñu borom alayhi salaatu wasalaam moo ëpp moo ëpp tam ni Muhammad ni Moussa soppi koo Muhammad sallallahu alayhi wasallam soppi koo ko ndax dëgëral bi ko yàlla dëgëral bi nga xamee ci laylatul mi'raj ànd naa Jibril ak Alburax ba dem sidratul muntaha te mu ne Jibril wéyal mu ne ko bu ma wéyoon lu tolloog dijaayu karaw rek lakk ci leer yu màgg yi yow mi yàlla dëgëral demal moo tax Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne law izdaada Isa yaqinan la masha ala al-hawaa'i yonte yàlla Isa bu gënoon a wóolu dëgg dana jaar ci kaw jaww ji ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaare woon ci jaww ji ba àgg ci hadratul quds te Jibril mënu fa àgg alburaq mënu fa àgg jaam nag du ko suñu borom joxee ruux dugal ko ci beneen ruux ruux ñaar la ñu koy faral di waxee ruux bu njëkk gi ruuxul xayawaan yi bokk la an nafsul nataqa ruuxul xayawaan yi mooy dundal jëmm nga xam ne jëpp jëmm ji dund am nga ko ar ruux bi ñuy wax ar ruuxul qudsi mu an nafsu naatiqa mu amati geneen jagle ba tax ñu tuddee ko ar ruuxul qudsi mooy dundal ruux gi dundal jëmm ji ni ruux gi dundalee jëmm ji la ruux boobu di dundalee ruux boobu ar ruuxul qudsi boobu nag ci la jaam ñi rawantee ci la ñuy ëppante ngëm ci la ñuy ëppante ragal yàlla ci la ñuy gën a xamante yàlla ci li ñuy ëppante ak texe ak teraanga yomal xiyaam ak bànneex ak la tàmbalee ca fii ruux gi di rote bu nga ne malaayka mi jël si ruux gi waxtaan nan ba tàyyi seytaane ni muy ñëwee waxtu boo xamee nit kaa ngi waaj a faatu ngir xañ ko la mu jaamu woon añaane ko ajjana ndax liñ ko sujjóot loo woon ci kii bàyyi doomu aadama yi muy aadama mu bañ ba ñu alak ko jaamoom gëm jaamoon yëpp di ko lor te du ko jëriñ tax mu bañ xeetu doomu aadama ba añaane leen bëgg ñëpp dem safara ne moom waxtu woo xamee doomu aadama bi toll na ci diggante boobu nga xam ne ci la mbir yi gën a doy ak waar mu soppi ko ñaari malaayka kii mel ne ndeyam kii mel ne baayam ñu ñëw taxaw ne ko yow suñu doom ji fii nu jaar fa nga jëm jaare goo fa nun ña fa jaar noo xam la fa xew neel deenaa ci diine yahood wala diine nasaraan ndax mooy gën ñoo gën ci diine yi moo lay tax a mucc daañu yor ay kaasi ndox yu sedd guy doomu aadama bi bu tolloo foofu dana mar mar woo xam ne buñ ko wëggee woon géej yépp yi du màndi bu fekkente ne suñu borom yërëmu ko seytaane yooyu daañu ko wax loolu li muy wax bu rotam rooxee bu rooxam rotee daf la ci loolu mu wax sallallahu alayhi wa sallam ne al martu al mar'u yamutu ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi noonee nga deewee ca melo woowee ni ci wax ni ci diine nasaraan wala ci yahut nga dee moom ngay dekkee ko defee texee di metti lool nga mel ne ko dee sa ñooña bu fekkente nag ku suñu borom yërëm la malaayka yërma di ñaar bu ñu wàccee malaayka kii seytaan yooyu daw nga daal di tudd yàlla mucc ba tax nit ki bu tolloo ci diggante boobu dañ koy sa baati seede yi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala la ilaha illa allah rek kenn du ne ko nag waxal la ilaha illa allah ndax mën na tolloo fi ko seytaane di waxee naan neel diinaa ci deenaa ci diine yahut bu ko defee muy tontu seytaane bi naan ko du ma ko wax fekk yow mi naan ko waxal la ilaha illa allah nga defee ne yow la wax bu ko defee ñu ñaaw njort ci moom te dana ko wàññi dara ndax roo gi buy génn yu bari day jeexital ci moom yi muy romb yi muy romb yu ci bari day jeexital bërëb yi mu nam yi mu niinoon yi mu nekkee ci jëmm ji ak jëmm ji ci boppam roo dana génn ci jëmm ji ba noppi ne doot toog fële du néegagu na dem bu fekkente ne dem na itam dund gi dundinum doon dunde ci àdduna ak bërëb yi mu niinoon ak yim daan jëfandikoo ak yim xamoon ak yim bëggoon yépp daf koy topp di def ay tâche ci roo gi mu di ko fàttaliku di ko nam wax nañu ay yoon ne mooy tax nit lim bëggoon ci bi mu nekkee ci àdduna ñu di ko ko sarxal buñ ko ko saraxalee dama ne ruuxu la ñu sarxe ruuga mooy dàq la ñu sarxe ba noppi ruu googa lay jëfandikoo mooy xéewal ga mooy neex ci moom ni jëmm ji doon lekk gura googu wala ataaya jooju wala suukar soosu ruuxu gura gi ñu sarxe wala ataaya ji wala suukar si mooy gën a neex ci kiñ ko sarxeel loo ca loola la ndax foofa ruuxa fay dem waaye jëmm du fa dem gura gi jëmmam fii lañ koy lekk mu jeex naka noonu xaalis bi naka noonu lépp luñ ko sarxeel fekkente nag jëmm ji am na lu mu bëggoon lool ni mu ko bëggee woon ci adduna ba di ko wut roo gi daf koy fàttaliku mu taq ko ci fàttaliku sarxee luñ ko ko muy wëndeelu lu yàgg bokk na ci mbugalum bàmmeel ci loolu bokk na ci mbugal ndax nit ki bu nekkee ci bàmmeel jëmm jaa fa nekk waaye roox ga ma nga fu ñuy wax barzax imam malik radiallahu taala anhu nee na balaxa ni anna nasamatal mumini tadhabu haysu shaat rooxu ki gëm yàlla dëgg day yewi ko waxtu wu génnee ci jëmm ji ko tëjoon day yewiku di wëndeelu dem ci bërëb yi mu bëggoon bërëb yi mu gënoon a miin bàmmeel bi jëmm ji nekk moo tax ñu kuy ziyaare wala yu fekk roox gi ñëw ci bàmmeel bi loo ñaan mu nangu ndax roox gi day wax amin malaayka yi wa àndal di wax amin te roox bu setee ba set ba sell day xaritoog malaayka yi إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم kon roo ci boppam day nekk xeetu malaayka yi di naaw di ànd ak ñoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne rey nañu Jaafar ibnu Abi Talib ca Muuta te ruuga sallallahu alayhi wa sallam dafa ne rey nañu jaafar gis seen naa ruuxam gi mu ànd ak malaayika yi di naaw di dem ci dëkk bu ñuy wax biicha di leen bëggal ci ne léegi mu taw dañoo mara noonu ba metti nga xam ne kon ruux yi nga xam ne dañoo sell am nañu ay liggéey yu ñuy liggéey ci bar sax naka malaayika yi malaayika yi nga xam ne bari na ci yoo xam ne suñu boroom daf leen a wakkil ci doom aadama yi ñu di leen wattu ak di nangu seen ñaan ak di leen musal ci yennat lu suñu borom nammul mu dal ci ñoom jëmm ji kon ma ne suñu borom ba mu ko indee ci àdduna sàkkal ko roo sàkkal ko xel jëmm ji nag mu def ci bëgg bànneex bañ naqar tayeel nelaw tooñ noppalu lekk naan bànneexu naan attaaya lu bëgg ah jëmm de moom yooyu mooy mbiram yooyu yëpp nag daf koy yeew ci kaw suuf si daf koy yeew ci adduna ba tax na du mën a dem mën a mënu la dem ba sax mënu la dem fenn roo gi loolu tëj na ko ba nga xam ne ba mu roo gi bi mu jógee al malaul laala fa mu cosaanoo bi mu dikkee dugg ci jëmm dafa mel ne ku ñu tëj kaso tabax warale kaso ba tabaxaat warale kaso ba ba muy téeméeri junni tabax bu jant fenkee du ko yëg benn leer du dugg si ceeñeer du dugg si bu sooyee du ko xàmmee ruu noonu la mel xamatul dara ca lam nekkee woon ci mala ulla la xamoon na boroomam bëgg ko di ko jaamu di ko sàbbaal xamatu ko fàtte na ko xamatul dara léegi dafa tawat dafa tawat mu mel ne malade bi nekk hôpital malade bi ku koy faj mooy yonent bi yonent yi alayhim salaatu wasalaam ñooy médecins yi nga xam ne ñooy ñëw di faj raggi xol yi ñooy ñiy fóot roox yi ci xeetu jaamu woon yàlla li ñu indi ak li ñu santaane yoon yi ñu leeral nañ jëmm ji xam xàmmee am itte xam li koy jëriñ ëllëg xam li koy lor mu góor góorlu ndax góor góorlu farlu moom la nit di raay moroomam nee ñu lépp lu la waaye rawee ëllëg bi nga koy def fii yaa ngi jànloo moom nit ki góor góorloo wattandiku bu baax jaamu yàlla bu baax teewlu ko bu baax di wéet di delloo si xelam ci yu bari ba tiit na mu ko gën a defee rek lay gën a ragal yàlla na mu ko gën a defee lay gën a xam yàlla ni mu gën a xalaate li ko yàlla defal lay gën a sant yàlla te dem ba kaso yooyu na ñu ngi koy toj di ko toj ba sàkkal ko volontaire muy jàlloog leeri jant bi mooy jëmm ji nga xam ne jaamono yàlla ba ruuxam set pecc xolam leer benn bu nelawee jàngloo kumpa yépp lu mu bëggoon a xam bu nelawee xam ko bu yeewoo bu yeewoo xam ne nangam ji itteeloon na ko bëggoon na koo xam gisul ku mu ko laaj wala laaj na ko ba tàyyi ñi mu ko laaj xamuñu ko mu nelaw ñu xamal ko ko ndax xol bu leer moo koy nit ki dana dem ba ci xol bu leer kum dajeel xam aji texe nga wala aji texee di nga xam gud ku gudd fan nga li la dese ci àdduna yàgg na wala yàggul du nag waxtu wu nekk lu koy dikkal la leen leer ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne ala inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahaatin ala fata aradu laha seen borom bii de am na ci waxtu yi adduna yi waxtu yoo xam ne leeram gi daf koy tibb di sànni na ngeen fexe ba taatanu ko bu dee taw ku fekk ku mu fekk sa ndab këpp doo am ndox ku mu fekk sa ndab dëng doo feesle ku mu fekk sa ndab taq doo am ndox mu set ki raxas ndabam ba mu set mu taatan ko mooy am ndox mu set mu leer mu ñu mën a jëfandikoo noonu la leeri suñu borom yi tabaraka wa taala ñi koy dékkandu dañuy def istiadaat istiadaat mooy jël say position maanaam rek waaja waajal ko daal waajal ko ba mën koo dékkan bu ngeen gisee ñiy dugg xalwa nga xam ne seen bët yi xoolatul adduna bi muy dugal tilimi adduna ci seen xol seen lamiñ yi waxatul lu jëm ci adduna ji suñu kuñ waxal muy dugoon wala tooñ muy sotti raxas it mu salte ci sa xol nga xam ne bunti salte yooyu yëpp tëju na ngay sikkar ak di xalaat suñu borom sukkuraat bàmmeel ak fi nga war a jaar fépp duggum xalwaan nga bu yàggee ba yàgg xol bi di gën a set ba mujj leer yi di rot si muy xam kumpa yi nga xam ne kumpa la ci ñeneen dootu doon kumpa ci moom doomu aadama ci boppam ni ko yàlla bindee daf ko sàkkal jàpp nikk mën a dem ba mel ni malaayika yi ba sut yennati malaayika ci xam-xam mën a dellu gannaaw itam ba yées mbaam xoox yées mbindeef mu gën a réere yàlla mel na seytaane bu fekkente nag jëfandikoo na li koy dimbali ba mu jëm ci yàlla ba mel na malaayika yi faatoo ruuxam sete ni set réew malaayika yi sete bala koy am nag dee ndax fépp yaram yaa roogaa ngi ci yaram bi rek buñ ko dompee mu yëg ko bu xiifee yëg ko war a lekk di naan def yëpp dana am ay jamono yoo xam ne leer googu dana ko feeñ muy xam kumpa yi waaye du doon jamono yëpp léeg-léeg lay doon xam ngeen ne nit ruu ci boppam ni mu nekk ci yaram ruu dafa am ay secret ay asraar yu xóot yoo xam ne day wëlbatiku di jalaañoo ci nit ki léeg-léeg mu wëlbatiku wëlbatiku boo xam ne day mel ne lu sori nit ki ba bànneexu adduna rek lay bëgg léeg-léeg mu wëlbatiku wëlbatiku boo xam ne daf koy ragal loo léeg-léeg mu wëlbatiku wëlbatiku boo xam ne daf koy xemmem loolu jëm ci yàlla léeg-léeg mu wëlbatiku wëlbatiku boo xam ne daf koy tàyyeel loo bu fekkente nit ki dem na ba xam xaalatu arwaax yooyu roox yi nekkin wu nekk nañ koy nekk ak la koy waral kooku mooy cheikhu tërbiye bi mën a tërbiye nit ki ba àggale ko ci suñu borom tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne waxtu ni nga xam ne suñu borom dafa bind nit ki ci maanaay turi yàlla yépp ganiyu wahaabu raufu rahimu shadidul iqaab lépp xawiyu azizu jamilu jalilu nit ki di di soppiku di am melo yoo xam ne melawu ko woon démb ak melo woo xam ne tey jii la ko mel mësu ko war a mel ëllëg mu mel weneen melo melo yooyu yëpp cheikhu tarbiya dafa war a xam la koy indi ak jamono ba xam yi ngay dox di dajeeg ñoom ñuy def ci yow taasir te doo ko xam li ngay xool muy def ci yow taasir te doo ko xam li ngay xalaat muy def ci yow taasir te doo ko xam li ngay lekk noonu li ngay naan noonu ki ngay waxal jëmm ji ngay waxal sax am na si jëmm yoo xam ne da ngay jàkkaarloo ak ñoom wax ak ñoom wala nga bokk ak ñam ñoom wala nga xuloo ak ñoom wala nga toog yàgg ak ñoom mu def taasir ci sa xol benn muy taasir bu rafet wala muy taasir bu ñaaw jëmm ji nga xam ne àggul ci mën a xàmmee yooyu lii wàllam mooy dikk ak fikr ak yéene lu baax soo mënee waxtu wooy dee benn pepp noone bu nekk ci sa xol ngir benn jullit bu mu am na nga ko def yiw yu bari la lay jox boo ko deful yiw yu bari la lay xañ li nga xamee ne kon jëmm ji roow gi dafa mel ne malaan mu set pëcc perkaal wala bassin bu tàll immaculé ñu jox ko mu indi ko àdduna buy génn mu salte tilim fokk mu jaar ci yoon wuñ koy fóote mooy safara waaye feeg malaat mi ràppul ba daggatoo te mooy ki gëmatul ne yàlla am na loo yàgg yàgg safara da nga ci génn bi sabab bi shifaati nabi alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne am nga benn pépp zarra ci ngëm doo sax ci safara fokk loo ci yàgg yàgg da nga ci waaye am na ñoo xam ne daañ ci am yàggaay boo xam ne buñ ne leen woon peppi suuf yi bis bu nañu fab ci benn bu jeexee ngeen génn safara dem àjjana dañuy bég ba seen mbég lépp maar bi tali safara yàlla na ko yàlla umbale lépp lu naqari lépp lu metti lépp lu tiis nga fa suuf suut soo xam ne si dafa tàng ba xam nga safara bu xonqee rek tàngul boo ko seetee ci salimo bi nga xam ne moom la waa ji di suudee plombier bi da ngay gis mu bële léeg-léeg mu wert safaraw àdduna na mu gën a tànge boo seetee jant bi ñetti junniy degré du dara ci safaraw àllaaxira ñetti junniy degré du dara ci safaraw àllaaxira xam ngeen ne téeméer degré ci la ndox di baxee ñeenti degré ci la ndox di màndale nit nga xam ne kon safara woowa yaram boo koy dékku weneen yaram la philosophe yi maanaam philosophie ñu weddi woon xasrul ajsaad yi maanaam ne suñu boroom du ca gën a jëmm yi yaan yi ñooy dekkiwaat delluwaat nañ meloon dal di indi ay lay yu bare bari waneen rek loolu dañ dafay jafe xamal nit ñi moo tax ñu doon ko wax waaye ruu rek bu keroogee ruu yi rek la ñuy woo ñooy ñëw ñooy dem àjjana ñooy dem safara te loolu sharia ak dindi na ko sànni ko fële lay yi ñu layoon yépp boo seetee taxafutu falasifa tontu ni leen tontu lu leer ba woon ne leen ne li ngeen wax tegu leen ko fenn roow duñ ko mbugal mukk te nekkul ci jëmm waaye nag du caa génn nag jëmm ji woon ci adduna gi def jëmm ji woon ci adduna mën na cee dugg jeneen jëmm dugg ci leneen dugg ci leneen dugg ci leneen dugg ci ba nga xam ne nit ki dana gën a mën a supporter bànneex gën a mën a supporter naqar waaye lu yàgg-yàgg moom xasirul ajisaad nit ñoom daañu dekkee ci seen bàmmeel kenn ku nekk sa bàmmeel dana fett nga jóg taxaw ci kaw jël bi fëgg sa bopp suuf si wadd nga jublu penku aw yoonu béréb ba nga xam ne ci la ñuy daje nga tudd yàlla bala ngay dem tabaraka wa taala jëmm dana dekki manqué loxo la manqué tànk wala manqué bët xaala rabbi lim xashartani aame wa qad kuntu basiran wa naxsuru waaye ak mbir yàlla dimbale waan ak waane rek ba tey xamaguma li woon waaye mbir yàlla xamaguma
bu la woon Cheikh Lo ah waaw ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك نجزي من أسرف من دعاية ربه والعذاب العافية لا تقر الجزاء من جنس العمل nit ki nga xam ne daawul xool kéemaane yàlla yi di ci waaru te alquran dafa ne wa ka ay minaati fi samawati wal ardi yamruuna alayha wa maana muriduna bari na ay kéemaane yu suñu borom indi ci àdduna ngir ngeen waaru ci ci asamaan si ak ci suuf si ngeen di ko romb day joor ak càmmoñ du ngeen ci waaru ki nga xam ne du seet mukk lu koy waar bëtam yi du ci jàng alquran bu bu bu dekkee day gumba du am bët mu ne suñu borom lu tax nga fang ma ma nekk gumba te dama daawoon gis mu ne ko noonu la la sama kéemaan yi daal dikkale te daawuloo leen xool moo tax mu fakk naka noonu yeneen cër yi itam al jazaa'u min jinsil amali waa ji nga xam ne dafa rëy bàkkaaru rëy moo waral ak texee dem dafay nit ku rëy fonk boppam fe ne moo gën nit ñi di senkli ko bu keroogee day njëkk a dekkee melaw mellantaan nit ñi di ko dëggaate ku ñëw dëgg ko ku ñëw dëgg ko te dëgg boobu dana metti metti goo xam ne dana nuur ci suuf loolu mooy tàmbali bi bu demee daañu ko taraxal wax ak ñëpp kenn du wax ak moom suñu borom du ko xool sax naka noonu ki añaan ak ba xeeti jàngoro xol yi nga xam ne moom la lislaam di faj jeex jàngoro ju ci nekk ni nga xamee ne xeeti jaamu yàlla yi jaamu bu nekk ak fayam xéewalam moo tax jëf jëf jaamu yàlla yëpp baax ko defee parce que muy xéewal fii ci àdduna sax xéewal yi dafa bari xéewal yi dafa wuute dafa wuute
léegi boisson yi neex na ñam yi bari nañu lool benn bokk ci sa morom lu muy saf fekkoon ne dañ la kon andi la tey léegi ceebu jën rek ngay lekk doo lekk leneen dama ngay dee waaw dina metti du neex ci yow ah naka noonu yemal xiyam leer yi bu ci nekk ak cafkaam ak bànneexam ak teraanga ji muy àndal ak tagg yi ñu lay tagg ak yëkkati gi ñu lay yëkkati ki gën a xiif ci àdduna ngir yàlla moo xam ci koor la wala dafa daan nekk ci xalwa wala mu wàññi lekkam ngir ay xalaatam leer su kuraat bu ñëwee mar woowu du ko mar ay xale yu rafet rafet rafet ngay wàcc ci asamaan si sol yu rafet xet yu gën a neex jox kaas yoo xam ne bu ne benn góox rek bu ko góoxee bànnee xam kenn mun la ko wax ci àdduna amul ci àdduna ndax naan yooyee amul ci àdduna dañ koy jëlee àdduna dañuy wax ne xéwal li ñuy wax ci àllaaxira bi ko misaale ci àdduna damay ne alquran di wax wa anhaaru min asalin musaffan masalu jannat lati wudal muttaqoona fiha anhaaru min maa'in ghayri asin wa anhaaru min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anhaaru min asalin musaffan wa anhaaru min xamrin lazzatin lishaarbiin wa anhaaru min asalin musaffan yooyu yëpp bokkuñoo yi ci àdduna lu dul tur wi tur wi dong la ñu niroo buñ nee sàngara am na àjjana sàngara sa ak sàngara si tur wi dong la ñu bokkee niroo wuñu dara dara dara niroo wuñu dara sàngara soo xam ne boo ci sa baaraam boo ko ci diggoon teg sa lamiñ da nga naaw loo xam ne mat na fukki junni doxu at dellu si ndax bànneex leer leer goo xam ne da ngay leer bu àdduna bépp lëndëmoon da nga koy leeral loolu si naag suñu sàngara si meew ma noonu suuf sa noonu lem nga noonu yépp noonu xam ne kon àjjana moom ku ko moy perte nga perte gu kenn mësula perte ma safara it ku ca dugg perte nga perte goo xam ne dara ci àdduna jëru ko dundoon ci àdduna di dund nekk ci àdduna di dunde ay xal doo lekk doo naan ñi la ñi di la jam nga dund junni at te dem àjjana jar na lu ko ëpp yooyu yëpp nag li ma leen di wax yëpp nit ki bu tolloo ci sukuraat balay ruugee root dana jàndoog yooyu yëpp jàndoog jëfam yëpp jàndoog fay la malaayka yi nga xam ne ñooy jël si ruux gi ak yi koy gunge melo yi mel mi ngi aju ci ay jëfam rek bu duggee ci bàmmeel itam ay jëfam nañu meloon rek bu dee jëf yu ñaaw yi jaari ñàngoor la xam ne ay dañu tonne ay yeew di ko laxasu di mat ñii ay ponk li jiit yu toll ni gëléem wax boxtu la wax yu toll ni boxtu gëléem gëléem boxtu mooy chameau yi li ñuy wax chameau ah jiit nga xam ne ni mu tuute bu la fettee rek nga bëgg dee bu tolloo ni gëléem bu la fettee looy wax lu doy waar de jaan yoo xam ne mën na naan géej gi di la sàqami di yàbbi di la sàqami di yàbbi waaw bal day di dal xawla wala quwwata wal iyaasu billah moom daal li gën a gàtt daal nit ki deful ci àdduna lu jar dem safara deful ci àdduna lu jar mooy àjjana àjjana ak safara lu ci nekk nag dafa am ay muqaddimaat bala nga cay dem dana la wóor ne ci nga jëm waaw diggante bi ci nekk moo gën a tiis ndax dañu ne dee ci boppam lu dul dee rek dee ko gën a tiis te lépp lu ñëw gannaaw dee moo gën a tiis dee la ñëwit gannaaw moo gën a tiis loolu ba ba ngay dugg bàmmeel ba roowu gi di set ba ñu dugg bàmmeel ba duggee bàmmeel nag ba roomaan ñëw ba dem ba mun ko rek nag yir ñëw ah doye doy waar la doye mat di delloo si la kon nuy wattu suñu ay moroom di leen ameel xaq di balante xaq ci xew-xew yi ay tabaski kore yëpp daañu ko def balu xaq nag dañ ne mboolem xeet yi jiitu woon muhammad alayhi salaatu wasalaam yëpp koy balu bu la ne baal naa la balay baal gaa dog nga wax ko la nga ko def xeet muhammad sallallahu alayhi wasallam rek la ñu may nga ne nit ki baal ma mu baal la te xamul li nga ko def am na nag tooñ yoo xam ne araam na nga wax ko nit ki ndax boo ko waxee dana jur leneen te du la ko baal itam yooyu nag diggante bi yooyu nag nee ñu mooy naa jël nit ñi bis penc ba ni ma ko waxe woon sànq rek wattandiku sa borom mooy wattandiku ko ci li ngay lekk ak li ngay naan fi ngay dem li ngay xool li ngay déglu li ngay jëfandikoo jëf ci sa ay loxo wattu sa ay moroom it mooy seen jëmm seen alal seenu der seen jëmm bu leen dóor bu leen xaañ bu leen lor bu leen gaañ te tey ko te dëkke di leen balu xaq yi nga amee it ngay ñaanal seeni boroom ndax mu fay ko koo tooñoon te dundul mënula koo dabaatal te di ko ñaanal jëmm ji lu ciy dal te sama boo ci yow lépp boo ko wattandikoo mu des aw deram aw deram mooy nit ki li ñu koy waxal te bu ko déggoon du ko neex rawatina bu dul dëgg te bu ko déggoon du ko neex rawatina bu dul dëgg bu dul dëgg mooy buxtaan bu dee dëgg te bu ko déggoon sax bu toogoon nit nga wax ko waaye du ko neex mooy jëw jëw nag ndagam moo araam rawatina buxtaan buxtaan dafa boole jëw ak fen te dañu wax ne fen bu génnee ci gémmiñu nit ki day yéeg ba jot arsh bu demee aras ne suñu borom man maay fenu diw su ko defee suñu borom rëbb ka fen malaayka yépp rëbb ko fen wa dellu si boo rëbbee nit itam rëbb wi day dem ba aras mu dellu si bu fekkee ne gis na ki nga rëbb mu yeyoo ko rëbb mi dal ko fekkee ne yeyoowu ko mu wër bu gisee ku ko yeyoo mu dal ci kaw bu ko gisul dellu si ci yow mi ko rëbboon mu dal ci sa kaw kon deru nit ki nga bañ cee teg lenn loo xam ne du noonu mooy teraangaam boo xamee ne kon jëmm ji wéy na der bi wéy alal jee ci tegu nee ñu bën bënu puse lu xajul ci bët rek xajul ci bàmmeel bën bënu puse boo ko amee li nit doo jéggi siraat mukk te fayuloo ko ko kon ba Seydi El Hadji Malick boobu mu wax wa innahu la qutila insaanu fi sabilillahi salaasa marratin summa aasha wa maahu daynun laa yadxulul janna xadis la bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax nit bu doon jihaar ci yoonu yàlla ba ñu rey ko suñu borom dundalaat ko muy jihaarati ba ñu rey ko mu suñu borom dundalaat ko muy jihaar ba ñu rey ko ñetti yoon yowmal xiyaam mu amee bor du jéggi siraat te fayu ko kon lépp loo amee sa moroomu doomu aadama loo ci mën ci def ko istihlaal nga def ko loo ci mënul nga di ko ñaanal ñaan bu bari ak di ñaanal jullit ñëpp footal allahumma fi liwal wal dewal jami muslimin muslimat mu'minin mu'minat lahaye mala mu waati wàcce alquran kaamil bi jàng xatmu boobu ñaanal nga si jullit ñëpp yu mel noonu mat nay bari yu mel noonu mat nay bari ak it yëkkati ci sa alal loo moom liggéey ko mu lew la nga yëkkati ko ngir jëmmi yàlla rek boo ko mënee nëbb ba loxo ndeyjoor bi koy joxe loxo càmmoñ bi du ko yëg tuyaabaam lu rëy rëy rëy la te koo mën a jëriñ jëriñ ko mooy yokku texe mooy gën a tax nit ñi gën a texe lekkal nit dara nag lekkal nit dara ko ko mën mooyu ko ndax dana la sonal bis kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xaw na guddi te dañoo bëgg a def ba kii. ngeen tàllal loxo yi mu ñaan.